ewali si yéen kaay père Tama Boubane Ousseynou Diall ak Ezen di ñetti doomi Sénégal yi faatu woon keroog ca Mali l'observateur xëy na seeti seen i mbokk ubbil yéen kaay bi Malick Diallo di soldat ba woon moom mooy wax si journal bi rek ne rakkam ji di Ousseynou Diallo gisoon na nag di Abdoulaye Diallo si l'observateur di wax rek moom moo génn àdduna yéenam yëpp moo doon tabax ab taax ba mu rafet daanu fay dugal Ezen mi ngoo mi ngi bokk si ñetti soldats yi faatu ca Mali ay mbokkam nee ci l'observateur bi mu takkee jabar yàggut ñoo ñoo ko xamee ci ab post Facebook bu xaritam bindoon ginnaaw bi mu faatoo keneen itam di Pierre Tama Boubane soxnaam si mu bàyyi Toussaint Taki Boubane nee na jëkkëram bàyyi na fi liir boo xam ne ñaari semaine rek la am mu nekk liir boo xam ne du ko mus a gis ba abadan ñetti solo lana doon xeex ca Mali bokk na si jàmm joojee sax fa na lool ni démb ci cérémonie officielle bu 143e appelu Seydina Laay les économies moom maam Libaas Laay ñi bëgg xajamal jàmm réew mi kàddu maam libaas laay si xëtamu njëkk vosu populaire ni jàmm bi yàlla àndal mooy jàmm bi nga xamante ne si dox jàmm di sàkku jàmm di dox jàmm si digganteem ak moroomu jàmmam salay national li ñu sa yoofu wane nañ yoonu jàmm ñaawlu xotti gi ñuy xotti war kilifa diine ak kër kilifa diine ginnaaw Tuubaa Tiwaawoon Medina Baay waa Yoof yëkkati na seeni kàddu di ñaax asanu suñu gën a warmal kër kilifa diine journal bi la tribune moom di ko dëggal ci xëtamu njëkk ñu présidentielle bu atum 2024 jërë ngeen jëf ñu yendu jàmm